嗯。 liiru jaan nga laay taalibe Bamba la fekk ci safaru Balla Gaye 2 di sa doomu ndey di sa frère wuli yow tey nga xama naan wuli sax maa ngi jégalu nga dendeek Balla muy def safar di taalibe Serigne Bassirou Ba di frère am tey nga toog ak Balla Gaye taalibe Serigne Bassirou Baara bi def safar teg ko muy juróomi fan liiru lan la dundee loolu jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jarama mam Cheikh Rayma Fall lapp Babul Mouridina ñun sant yàlla ak sëriñ Touba. ku ñëw fii sa aajo faju na xam nga ni kii taalibe Mame Cheikh Ibrahima Fall taalibe Serigne Touba taalibe Serigne Bassirou Bara tey tubaarikàlla macha allah da nga daa gis safar gaa yi def benn fan ak ñaari fan déedéet moom juróomi fan la ko def yow gàtt nag yaa ngi nii jeexagul at yi ma yóbbu Touba barke Serigne Bamba nan ko ñaanal. xale la daa nekk si yoon te taalibe la taalibe moo am solo leen lu fi waay jaay loolu taalibe wàcc nga ko kon nag sant Serigne Touba sant maam Cheikh Ibrahima Fall sant Serigne ñëpp ba sëñ Bassirou Bara lépp moom la kon nag sant yàlla nan ko ñaanal gudd fan ak wér man na ku ma fekk fii doo ma laaj yoo fii def déedéet dama koy laajee Mbaye 2. Mhm. sama rak sama xarit. waaw cam ay Mbaye kër Dior ak Dior kër Samba nga. mais mais lii ko ñaanal at di wax safaru Balla Gaye 2. safaru Balla Gaye safaru Balla Gaye 2 bi liiru jaan. waaw xam-xamee ko Balla Gaye 2. waaw mu fekk ko fii tey mu kole ko. saf ci saf. waaw ci rab. waaw waaw. buñ ne deful lu may def buñ ne Serigne Bassirou Bara tey yàlla yàlla yokki leeram mais ku ko dem ci Balla Gaye te fu ñu gis Lirou Diane dégg ko mu ne Balla Gaye frère am am sama la sama xarit la loolu yàlla ko def safar gi métti na wala mbégte la koy dundee sant yàlla mbégte la koy dundee moom lu mu def ci yoonu Serigne Touba mbégte la koy def xoolal ma gàtt yi waaye ku man defal gàtt yaa ngi ni tubaar kàlla macha allah taalibe la taalibe la moom lu ko waay naxee ci Serigne Touba yaa ko moom lu ko waay naxee ci Serigne Touba yaa moom kon nag nañ ko ñaanal gudd fan ak wér gi yaram te yàlla musal ko ci catal làmmeñ ay yoon Serigne Touba la ilaha illallah wa rasulullah bu ñu gis Lirou Diane rek baat bi lay repéré ci yow chaque jour soo waxee ba dem na ba nit ñi naan est du fay Lirou Diane lii sa lan la wala a la la toll donte <laughs> liiru mënu ma ko fay sax moom au contraire liiru moo koy fay parce que tey ñëpp ñu gis muy wax dañ ne xale boo koy lebal da nga koy lebal bu baax maa lebal di ma nekk xale musul bëgg sax ku may tooñ bala ngir waalo moo nekkoon nekk mu gisee may coow wala we nanga dax ma kaay nga toog bu di may yedd ci lu bëri bëri di waxtaan ba yàlla dogal tey bu bëggal ma ko bëggal boppam du tey soxna am tey dama xew wala mu nekkoon mbër rek wala nit yi te yàlla boole ma am depuis sama début moo ma yar di nekk ci man lépp lu xam na bu baax dafa nekkoon si tamit ma delloo ko nekk delloo ko nekk moom bi géej waay xëy na géej fu ne ci àll parce que moom loolu géej waay moo dee ci xol waaye man lii du man maa ko bëgg a sonn càggeen ne lii moo bëgg man maa bëgg ne dama <laughs> man kay ma bëgg la ay bëggante la waaw bi suñu jur woon na sax déedéet moom tamit noonu la ci dañu furoo ngir man man tamit noonu laay wallaay ay am ah, bëggul ko ma laal déedéet maa ngi koy ñaan bu fan ak wér gi yaram tax ma laaj la loolu mooy dañoo am fu ñu daje fan yi maram moom mu woo Dame Sène di ko xamal sa cofeel ci Dame Sène di wax Dame Sène kon suñ boobu def naa ko Dame Sène vidéo ma fekkee ko mais tout le temps Sénégal li ñuy répété ne lii ñu jaar du ko Balla Gaye parce que fu mu toll Balla bañ na ko ba nëbb ko kenn boo waxee Balla Gaye bi sax jot lii ñu jaar Sénégalais tey bu ñu gisee Balla ak lii ñu toog tey ñu def safar ngay sant Serigne Touba comme ni ko bëggee lan nga mën a Sénégalais yi tey la lii ñu toll du lépp la a xam mais nee nañu tey nit mën ko defal wax ko wala ñu xool ci kanamam muy mbégte ndax ñaari façon jooy am mer ak mbégte te kenn ko jaaw nii lay def rek xam nga liir moom suma mag la xam naa daal wax dëgg yàlla yàlla boole nañu te du tey li gën a yàlla boole na te maa ngi ñaan yàlla eggale ak lamb góole moom lamb lu mu toj mosul mu bëgg lu mu xewle wala man lu ma xewle nii lay demee wala ba ma daanee ba pare boo bëree ba pare gërëm naa njëkk a laay wala billaahi wallaahi sagal sagal sagal ma sigil ma ñëpp génn ma sama génte barki de mooy jaay tamit mu ñëw noonu dafa ay tranga ah ñëw fa may xaalis bari sagal ma sigil ma am na loo xamante ne nag na tey bis bee ko laaj parce que Galaye Talibé Bamba yàgg na bëgg a dajeeg yow dajewuñu euh, sa digganteeg Sa Cadior am na lu ma ci xam ndax jot naa papa jéego yi def ba am champion boo xam ne du leeral na ma ni jox nga ko lu ëpp 1 million 500 mille ñu ko mujjee jox moom moo ko lekk mais xam nga turam xam naa ko sa digganteeg Sa Kajoor nga ci doon def te kenn du ko man nag maa sañ a tusal ko ndax kan ko doon jox xam naa ko. waaw adduna moom solo xam nga adduna moom Sa ñoo débuté loolu yàlla mooy doon nit mooy dem ak nit mooy xaar. bëri nañ sax ba pare. laay corom koy bon faram. tey li ko man coow moom li mu dama dal. maanaam ay doomu aadama rek lañ ma gis ndeysaan mu am

moma far mais wax ni Balla Gaye def na ci djego yuma ma man ak kam ko don djeflentel champion boobu moo ma wax motax tay ma am occasion wax la ko ndax suñu waxtan man ak yow xajul fi lima lay laaj dafa jiit suñu judd man ak yow dañ ko jàpp ba bële gis nga loolu wax ko mun ci leral tout tuuti tam ak sàkk jox ñom ñaar dañu nekk ay xalé nek fi tamit doon do gëdja way di toj àdduna di toj mbappat ban ñom ñaar ñu boole leen ci rompoy mor fadam ñu bëre ba naw kenn mënta daan kenn fekk ñu tegaloon saaku ceeb saaku ceeb ba mujj gi dañ ne léegi dañuy keneen boo laagi dax su laagi danay jël benn ku ñu jox la ñu jox la benn saaku ceeb ndax xam nga lu tax dañoo bëri bëri bu neex kenn daanu sa morom te jii muy mottali kóllëre te mook Sakka Dior yàlla mooy dogal waaye Sakka Dior tey champion waroon doon yàlla moo tuddee ni nag ay mbiram waaye ñoo ngi koy ñaanal gis nga Balla du def di wax déedéet ba dégg naa ba tay ñu naan maay géwalam maa tay maa tay su ma neexee ku mu naqari ku mu naqari xaral suuf si dugg ci maa ko wax kene benn journaliste man kë maa ngi wax ak ma may intéresse naa ma xaa yaay géwala Balla Gaye maa tay su neexee sama rakk la maa tay ba tey ku man defal waaye ma xamal la benn affaire ah. ñoom ñëpp samay rakk la adduna amul solo ah, ah. loofu gis dafay jeex loofu gis dafay jeex xam nga yaa ngi wax léegi naan si diggante ak saa Kajoor loolu mu def noonu yàgg na koo def na ko lu booleeg ay wax nan ko ñaanal rek yàlla lafal ko cat te musal ko ci saytaane ak làmmeñ moom day liggéeyal Serigne Touba mm-hmm. ak maam Cheikh Ibrahima Fall ak sëñ Bassirou Bara nan ko ñaanal yàlla lafal ko cat xoolal ma rek safar gaay gaay benn fan la noonu safar ak ñaari fan fan lay safar juróomi fan chaque jour mu reyu gàtt waaye waaye laf cat yàlla la yàlla la ban cat ci kaw sama xarit la gis nga nit ñi coow fi nekk nii rek ratatatatatatatat gars yi di wax ku man defal at naa kii sama rakk lu ma xew la moo fay jiitu waaw lu ma xew su ma fi jiitu damay tooñ damay am bàkkaar kon su boobaa saytaane yi deen am lu nu wax chaque jour dañ ko fee war a gis ñu ngi lay